dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo yéene kaay gii di réew mi ko di jeex xëy ci rétro politique 2019 ak élection présidentielle yi nga xam ne daan na fi jaaram mu doxoon diggante Macky Sall Idrissa Seck Maître Madické Niang Ousmane Sonko Issa Sall journal bi dikk na ci yooyu la élection ak pëccoxoo bak piccoog mbaalo gi nga xamante ni moo ci am ak révélation yi nga xam ne am na ci 2019 bi mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal looxóor yi nga xamante ni moom lañ siy tudd ak i njublang tumal ci Aliou Sall te defoon ci app reportage mu daal di yëngaloon réew mi loola loole nag réew mi quotidien daana ci dellu si ak lu soxal Amadou Ba mi nga xamante ni dañu koy tuumal ne jamono ji maanaam dafa bëgg a wuutu njiitu mi di président Macky Sall Guy Marius Sagna mi nga xam ne ma nga ci kaso bi moom mi nga xam ne maanaam da dox doxum ñaxtu ngir nag ñu daal di wàññi bi dem ba ca buntu palais ba journal bi dikk na ci l'observateur wax ne tey ji na njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam discours à la askan bi di ka xaarandi waaye nag discours la boo xamante ni sous haute tension ndax jamono jamono la joo xamante ni réew mi jamono ji ñu ëpp daal ñoo ngi jàmbat laas yéene mu ñu xamalaan ñu Ousmane Sonko moom nag jamono ji daan nay bokk ci collectif ñoo lànk ndax ni ki démb da leen doon dalal la mu leen xamal nag maanaam daal mooy xeex bi maa ngi ci ba jë biir te nag ñi nga xamante ni daal maanaam ñooy askan bi ñëpp ñoo si war a dugal seen loxo ndax mbir mi nag du xeexub kenn xeexub ñëpp la ndax courant bi nga xamante ni maanaam dañu ko yokku dafa tegewul te nag nguurug Sénégal daf cee war a deltu ginnaaw docteur Babacar Diop mi bi ñu ko génnee moom nag daat nay ŋàññi bu baax a baax li nga xam ne mooy jaloog national bi nee ay caaxaan rek ñu fekk ko ci libération la mu xam le nee na Macky Sall ci boppam bu ñu waxante dëgg dafa wor yàlla wor yonente bi wor aw askanama du sunuy kàddu kàddu docteur Babacar Diop la ma ngi ci journal bi di libération yéen kaay groupe promo consulting bi mu daal ñuy dikkal ci comité de rédaction bu site d'information bii di VI People ñoom nag ci année 2019 bi dañoo tànn président Mbagnick Diop daal di kay def homme de l'année moom njiitul MEDES mu nekk koo xamante ni daal grand public bi xamuñu ko waaye nag ab entrepreneur naturel la boo xamante ni dafay mujj nag nekk ab leader boo xamante ni daal maanaam bu fës la bu ràññeeku la nekk kàngam ci mbir mi mu jàngee ci réew mi mujjee fi jugee dem ca Paris la France dem jàngi di kan nag daal di créer li nga xamante ni mooy ab entreprise su boppam di promo consulting bokk ci nag entreprise yi gën a fës ci réew mi ak ci sous-région bi ba ca bitim réew ginnaaw corridor bi mu amal ci réew mi di ko amal ci bitim réewa moom président Mbagnick Diop site d'information bi di VI People daal di koy def nag seen homme de l'année ngir taxawaayam ci secteur privé bi ak ni ko réewum Sénégal yi teelee laas yéene kaay mu ñu xamal laan ñu procureur bi nag moom dafa bëgg a coon sec yóbbu ko ci kaso bi journal bi mu ñu xamal laan ñu dafa def appel ci lu jëm ci mbirum faux yi nga xam ne maanaam moom lañ toppee woon coon sec yéene kaay gi mu ñu xamal laan ñu bi ñu la taxoon ñu ko dañu annulé candidature bi ndax dañoo respecté wutoon li nga xam ne mooy numéro bu yomwa laas yéene kaay mu daan ñu dikkal ci loi yees bi nga xamante ni daan nañu koy voté ni ki ci lu jëm ci mbirum siif ak mbirum yekkataan waaye nag am na ay piège ay ndëgg sërëx yoo xam ne daan na cay am député yi ni ki démb ci lu soxal mbirum loi bi la ñu xam ne nag maanaam dañuy ragal ay fausse accusation maanaam ñu tuumaal nit lu jëm ci mbirum viol wala yekkataan te dara amu ko gunge ko yéen kaay gi ba tey ñu fekk fa Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi ci passation de service bi amoon diggante waa SD ak waa Suez daan xam le ne ndox mi moom duñu ko daal di yokku réew mi ko quotidien aar sunu moomeel ñoom nag daan nañuy déposé ab plainte ci table procureur ci lu jëm ci détournement yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo wax na ko ci jiw wi ak ci engrais bi waa SAES e ñoom ni ki démb doon nañu jano ak taskatu xabaar yi waaye nag ñoom nee nañu ministre Cheikh Omar Anne dafa bëgg yàq ëllëgu ndaw ñi ndax bu bëggee orienté étudiant ci université yi ba pare jëlut ay matukaay ay infrastructure yu doy loole nag mooy bëgg a sànq étudiants yi te loolee kenn wuru koo nango yéen kaay gi di sunu làmb dikkal ñu ci rétro 2019 ak li nga xam ne moo xew ci làmb ji journal bi dikk na ci combat bi doxoon diggante Modou Lo ak Balla Gaye ak Balla Gaye anam bi mu ko daanele woon juutal ko ak combat Modou Lo Eumeu Sène Modou Lo dóoroon ko Eumeu Sène këpp ba musiba mabu kumba naroon ca am ak Luc Nicolaï mi ñu jël dugal ko si kasu bi lamb daan na dikk ci rétro 2019